ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قليل salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal nuyati nañ leen ti leen comme niñ ko daan defee tey nag tey ñoo ngi fii Kaolack ku ñu gis ma gis ma toogal ki nga xamante ne mooy Baye Mamour Niass ñu fekk ko fii si Kaolack ñëw fekk si ko di ko ziyaare di ziyaare àddina yëpp di ziyaare waa Kaolack di ziyaare sëñ bi bu baax Baye Mamour ñu ngi lay ziyaare. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala yal na yàlla nangu ziyaara Baye Mamour tey ñu ngi ñëw fii nii fekk si ñu ngi fekk si la fii si Kaolack di la si pour gàmm gi tey ñu ngi gis gàmm gi mu tasanteeg mbas mi tey ñu ñëw fekk si la sa biir kër nan nga gisee mbas beeg gàmm gi. ñu sant bu baax ci yonte bi sallallahu alayhi di nuyu waa jasi gi eh, ci teewaay bi teew ci Medina Baye ci ren bi taxaw askan wi taxaw ñi seetaan ñu mën a am information ci gàmm bi tax na maa ngi am mbégte lool ci bés bi di leen nuyu nuyu personnel bi yëpp di wax ne ñi ci juddug yontu sallallahu alayhi wasallam di ko màggal si buntu moona Cheikh Ibrahima Niass mooy waxoon xëniyan li Ibrahima laaxa ilaaluhu ndokkal naa sama bopp man Cheikh Ibrahima Niass ndax sama weer moo teru kon bu fekkee nag ma laaj mbas mi ak gàmm gi du ma def rek lu may ne ñëw nañ ci ki nga xam ne mooy saafara feebar yi mooy shifaawul quluubi wal abdaan mu moo yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku feebar boo wéree rek nga xam nga ñàkk xam su moom la la yàlla wérelee ngay julit ngay yéeféer ku am yërmande yàlla rek moo tax nga am ko kon kooku yaakaar naa bësam képp kuñ mën a màggal màggal ko moom moo gën a foor kon teew ci bësam sécurité bi ñu ci am ñun ak confiance bi ñu ci am tant que njabootu Cheikh Ibrahim taalibe Cheikh Ibrahim yaakaar gi ñu am ci moom ko ci yàlla moo ñu may kóolite ak confiance ndax duñ oo nit ñi ci lu leen di gaañ duñ oo nit ñi ci lu leen di yóbbu ci musiba ndax alquran daf ne laa tulqu bi aydiikum ilaa tahlukati bu leen jël seen loxo sababal sa sa bopp loo xam ne ni daf lay yóbbu ci ci xalaku kon ñun bu ñu nee ba osé oo tey gàmm rek dañoo gis ne solution ëpput Baye Niass solution ëpput yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te moom mooy loxo yonent bi mooy mbóotu yonent bi mooy làmmiñu yonent bi moo tax ñuy taataan ci loxo yàlla di ñaan ci bés bi yàlla may ñu jàmm yàlla may ñu saafara feebar bi yàlla jëlee ko fi pexe yi ci doomi aadama yi pexeel doomi aadama yëpp ci lu mën a doon lu yàq doomi aadama rek baaxut yàlla ko yàlla fekk ah, di ñaan tam yàlla def xéewal ci Sénégal def ko ci àddina bi jullit ñi di wax tamit ànd ak loolu yëpp nag jën nañ suñu matuwaay ndax ut nañ ay gel ut nañ ay masque jox nañ ko daayira jox nañ tàtt daayira yi ñu bëri dugg nañ ci dëkk bi loolu lañ ñëwee bu ñëpp amut ñu bëri da nga gis ñu takk ko da nga defkat yu baax yi nañ fi ay masque fii commission comité santé ci comment la bokk ñu jot nañ ay junnee junnee masque yoo xam ne jëloon nañ engagement dinañ ko tasaare ci biir dëkk bi kër sëriñ si si zone verte yi nga xam ne nii mooy comme jumaa ji xalifa bi kër yi ko wër yu ci aju ak tente bi dañ fa exiger ay mbir yoo xam ne nii ku fay dugg danga nga am masque yu ni mel jumaa ji yooyu yëpp rek pour jël matuwaay yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy nit yi àddina ministère de la santé ak ña ci aju euh, nañ gisee ne moom mooy fekk feebar bi ba ba bu tasaaroo ci nit waaye nag kii saafara xol yi dëgg ak jëm yi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin foofu daal la yaakaar gi nekk foofu la mbir mi nekk moo tax foofu lañu jàpp ñun incha allah ñi nga am yaakaar daal ne jàmm rek ay am xéewal mooy am daal. ñu ngi ziyaare waa dégg nañ kàddu yi ñëpp dégg nañ ko mais suñu jógee si loolu ñu ngi ñu ngi ne ba léegi ñu ngi si mbas bi ndax dañu ne waat waa wan dafa am ñu ngi ne xamante ne ñu ne duñu gàmm ndax mbas bi mbas bi est-ce que mënoon naa bañ a tee ñoom mënoon nañoo gàmmu mais ñoom dañ ne carrément dafa am ñu gàmm ak ñu gàmm na xam yow loolu loo si sa xalaat. waaw ñun ñu gëm ci yaru Cheikh mooy ne mooy ne mooy ne lislaam bi benn la ci côté tariqa tijaan ñu ñu nag ñu bëri ci réew mi ak bitim ay tijaan lañ loolu moo ñu benn la waaye lislaam buñ ko waxee tariqa amatut lislaam bu ñu xasee boo wax ko rek dafay ëmb tariqa ëmb xaqiqa waaw parce que benn bu ci nekk rek mën naa mën naa uutu sa morom ba tax na ñun suñ gis-gis lañ mën a leeral lay ko waaye su fekkee dafa am yeneen jaamu yàlla yoo xam ne ñoom dañoo gisee ne ñoom euh, duñ gàmm ngir feebar bi ñoom ñoo xam yan raison moo tax ñoom defuñ ñoom ñoo xam ñun tam ñoo xam yan raison moo tax ñu jàpp ne ñun dañoo war a gàmm raison yi xam nag tam óoruñu ñun moo tax ñun ñu mën a sukkandiku ci jàmm yi ci des nag moom dañ ciy màndu waa ku la dégg xam na ni carrément Kossy moom féete nga si boo ëpp. waaw Kossy bërëbu yàlla la bërëbu feeñuwaayu yàlla la bërëbu feeñuwaayu xaqatu Muhammad la Kossy bërëbu feeñuwaayu xaqatu Ahmad yàlla Kossy feeñuwaayu mazharu zaat la ak jaami mazharu zaat Kossy feeñuwaayu faydu la faydu tijaan bi nga xam ne moom la. Cheikh Tidiane digge woon dana ñëw mooy fayda bi nga xam ne moo ëmb xam yàlla ak la ci aju ak jëfee sharia parce que xam yàlla wala xam-xam lu yàlla ba pare di diingat tariqa bi wala ngay diingat lislaam baa indiwul loolu bàyyi dafa ne bi zahiri shari wa nuuril mubin wa rabbi salikina bila shakki wala ci zahiri sharia ak ci leer gu bir kii sàmm na sharia ak ci leer gu bir ci lay tarbiya sama taalibe jëmee ko ci yàlla gën koo xiir ci lislaam waaye gën koo xamal lislaam lan lay junj lan mooy laa ilaaha illallaah lan mooy lëwalu yàlla moo njëkk lan mooy laaxaru yàlla moo mujj lan mooy zaahiru yàlla mooy li feeñ li feeñ lépp moom lan mooy zaahiru li nëbbu lépp yàlla loolu loolu bokk na ci li faydu indi ba tax na kon koos yi la boo xam ne yàlla moo ko tànn rek li tax ñu yónni yonant yi moo ñu xam yàlla loolu rek la li tax ñu yónni wëllu yàlla yi doon yonant yi mooy pour ñu xam yàlla yàlla du lekk du naan du sëy du dee du gëmantu yàlla li mu bëgg rek moo ñu jaamu ko te jaamu bi lim ci namm mooy ñu xam ko xam boobu nag am nañu ko daan xam ay benn benn mais nag mission bi ki ko taal ki ko mujjee te moo ko doon joxe démb ci Muhammadiye ci Ahmadiye ci xilaafa moo ko jagle tamit ci wiraasa mu war a wër àddina kooku mooy Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu koosu googu la nekkoon nekk fay at 1922 ba 1929 dëkk fa di fa fanaan dafa yow fa la njëkk a firi alquran ku si am na ngëneel fu baa ngees njëkk a firi alquran fa la njëkk a gàmmoo gàmmu yi ñu def nii fa la tàmbalee taawam fa la juddoo ñu ngi ko suul foofu Mouhamad Abdoulaye taawam bu góor laay wax dégg nga yeneen doomam fa fa la taalifee téer surul lakbar ak téer yu bëri ci ay wëy yum wëy sa sa fa la ko ta fa la daal buñ doon wax ne fa la ku doon préparé dañu wax ne fa la préparé woo ba génn ci àdduna bi yëpp waaye na lu jiitu pare di am parce que daf na indi ni xablal baraaya su jiitu mbindéef bi maa ngi bëgg yun salaa salaam kooku bàyyi ko wax bàyyi itam daf ne daxa ma fat yi inda mahdi sama ubbeeku ci yàlla mat na fi góor yàlla yu mag yi di àgg man àgg naa fa bi ma nekkee sama laytaayu yaay waxat am na jamiu rijal xëy bi taxta xadaay mboolem góor yàlla xëy bi yëpp ñu ngi sama ron tànk man bàyyi tànk na bu ko lu yàlla waxee rek mooy maqaam tuukaréwul ci kaw kenn ootewul lu may yàlla ootewul lu ma bi bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon koo si leer la ci kaw leer koo si bon Kossy Baye moo fa nekk ba 67 mu ne yoon soosam moo ko sant nañ nañ dellu Kossy gis na ko ay fukki fukki yoon lii Cheikh Mata Diagne ay fukki fukki yoon lii seen i ndaw nañ dellu Kossy nañ dellu Kossy waaw ndigal nag moom fa yóbbu am na lu ñu mën a wax waaye am na lu ñu mënta wax waaw man daal maa ngi yéene ñëpp jàmm ñu jëriñu ci ñu ñaan lant rek comme dégg ngeen ne fa laa féete loolu moom dëgg la fa laa loolu sax laa confirmé ndax tey yëpp fa laa yendu ba tàkkusaan ma soog a ñëw fii ñu ñaan ma sax yow gàmm gi gàmm gi ma neen waaw baax na fan yëpp damay muulul foofu dem laa collecture waaw kon nag Kossy dama fa yóbbu xaw ma ko xam naa ko xaw ma ko yàllaa ko xam dayo ba xam naa ko parce que ci ndigal laa fo toogee nañ ñaan rek lépp sotti ngeen bokk si ñi ci jëriñu. ñi nga lu ci dafa nekk ñëpp fa la ñuy dem nekk waaye dana feeñ ci kanam waaw du sama mbir nag mbiru yàlla la naa leen jaasi gi sax sax instant rek fi la lépp di feeñee dégg ngeen sëñ bi lu mu wax si si kon kontaan nañ tey jii ñu ngi woon tey fii nii nga xamante ni mooy Kaolack si gàmm gi sëñ bi nag fii lañuy ñuy tëjee suñuy kàddu si waa jaasi gi di la ziyaare waat di la bége di la tatagal di la warmaal naan la jër jërëjëf kontaan nañ sa kàddu gu mujj. ñu ngi am mbégte lool ci seen teewaay ñu ngi leen di gërëm di sant ci euh, may occasion bi ñu may occasion ñu jàkkaarloo xëy na dañ leen daan dégg tey gis nañ leen taalibe Baay bi yàlla jël boole kook Baay mu yóbbu ko ci yàlla daf daan dégg yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla waaye xamut ndax u amul lu ko wóor ndax yàlla ci asamaan la nekk wala ci siège bi la toog te ku taaj yàlla ci siège man de xaw ma yow ban façon nit nga ndax yàlla ni mu màggee ne moon allahu akbar moo gën a màgg lépp nga bëgg utal yàlla place warut place yaa ngi gàttaloo yàlla yaa ngi koy manqué loo te moom nee na ngi ànd ak yéen fu mën a nekk yàlla boobu kan yàlla boobu lan la yàlla boobu naka la ilmul yaqin la aynul yaqin xaqul yaqin ilmul yaqin doon nga dégg euh, Baye Mamoun wala ngay dégg Jazzy yu TV wala nga koy seetaan gisoo ko tey jàkkaarloo na ak yéen kon jaam bi buy dox tamit bàgg ci yàlla da doon dégg yàlla waaye Baye dindil na ko kiiraay ba mu wër ko ne yàllaa ngi nii waaw wala boog ni ngi nii sax amul dara amul ku may yàlla kon maa ngi sant yàlla ci yàlla mi ñu may moo mën a gisante ak yéen tey mu fàttali ma gis bi taalibe bi di gis yàlla gannaaw ba mu amee kiiraay doon dégg yàlla mujj gi mu wóor ko ne yàllaa ngi bi waaw ah, ñuy digal ñëpp rek jullit yëpp ñu nekk benn ñu ñëpp ñu fóot suñu xol ñu tuubal yàlla euh, dellu ci yàlla ragal yàlla maandu kilifa diine yi tamit ñu gën a yokk seen itte ci seen bopp yokk seen itte ci ñi leen yaakaar wax leen dëgg yóbbu leen ci yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm def fi xéewal gàmm gi ñu gàmm ci jàmm dellu ci jàmm def koy at ànd ak sant yàlla bu baax yàlla indi ndimbal bu baax a baax ci lislaam ci faydu bi ci zahir ak ci baatin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu